dal leen ak jàmm ñu xëy tàqaat ñi yéene kaay xëyandoo tàmbale ko téemoo yéene kaay téemoo yéene kaay la mu xëy rek moo di njëkk dund gi nag waaye itam soble seeg pompeter bi ji nag seer bu yegg ci loolu nag commerçant yi ñoom laqa si jaan bu kenn mënu see jot l'état moom moo na ñoom ko ci yoon jekkul jaaduwut état bi mun ta subventionné ba noppi nag jël njëg mi mun koo yokki nii bu askan mënu koo jotee loolu moom tegu leen ko fenn ñoom commerçant yi ñu mel ni sax ñoom nag yërëmuñu askan yu ndax si jamono ji lu leen neex def lu leen neex wax njëg yi nag kenn mënee su koo laal loolee naka dem bu sax bo ne ni ñi nga xamante ni ñoo di contrôler dañoo mujjee taay ci mbir mi ndax wax nañ ba sonn def nañ lu ne nag waaye commerçant yi te fii ci nag ni faaw ñu ndax ñoom nag lépp la ñu bëgg rek ñoom lañ ko mën a amee loolee moom jëkkul jaaduwul xool li ngeen def yéen commerçant yi direct news ca la xëy ci tabaski boobu nga xamante ni daanaka naka fépp la nag sénégalais véré ñi nga xamante ni dañoo bëggee dem dañoo dem sax ba ñu nga xamante ni ñoo ngi bëgg a askan wi ci li nga xamante ni moo di njëg yu seer yi naka loolee tax yéene kaay bi ne nag ñoom boo moytuwul yéen seen i naataango leen rëy fàqit ndax naka la ñuy jaayee kenn mu nee su da ngay seet loolu yéenekaay bi ne ay commerçant yu véré naka yoo xamante ni ci bëgg dong moo leen jàpp nag ci jamono ji ñoo ngi xocc wi bi bëgg leen a rey ak njëg yu cher loolee tax naka yéenekaay bi ne bu amutoon naka yéene ciy góorgóorlu itam champs yi naka konoon askan yu bëri naka dinañ faatu ndax ñi nga xamante ñoo nekk ci marché ñoom bëggewuñu dara ndax leen ay njëg yu cher ci loo xamante ni teguñ ko fenn ndax booy seet naka pompiteer bi nga xamante ni fii lañ ko bàyyi ak soble bi moo gën a cher fuuf li nga xamante ni mooy jógee bitim réew te sax saabu askan yu dëkkee naka jënd li nga xamante ni moo di pompiteer bi jógee bitim réew ñu commencé commencé di ngaw ngaw yi naan dañu fee bàyyi nag di jëndi feneen te li ñuy bàyyi nag moo ngi yàqu te loolee nag ñoom ñoo ko njëkkee ndax mënuñoo muñal a ñu ko dara rawatina nag ci xew-xew yi ci mel ni tabaski ci jamono joojee moom ñëpp sa ngeen ñëpp jaaxle ndax njëg ya fa ñu toll kenn mu ne su ko jotee l'évidence yéene kaay ne ab njàqare am na kay am njàqare am na de ndax cherté bi nag ñu ñamee ko jamono ji

ngi leen di wër rek mooy fulla ji wax ci leneen te moo di wàllum politique ak tribune yéene kaay démarrage maanaam tàmbale campagne électorale bi ni ci diggante joojee ngir mu aaral sa kaaraange yéene kaay bi nag am na leen lum siy tiid ndax lu amoon ci élection présidentielle ñu weesu bu amee ñu seenu bakkan ndax du amaan ndax ku nekk nag yaa ngi fàggu ay ponkalu maamu nervi nag teg sa wet nag ngir sa kaaraange alerte yéene kaay wax ci leneen ak may ATP la mu xamle rek am aéroport international ndax dayo bi mu am ak ni mu toll war ko mën am leneen ci li quotidien yéene kaay répression manifestation Khalifa Sall moom band na ay musculam de moo ngay dooleel ay loxom gi rek a jàmmaarloo état bu Sénégal nee nag ñuy torturé loolee moom xel mënu koo nangu ndax jàpp na ne tam ñuy faatu ci manifestation du kenn lu muy état bu Sénégal local yi coalition Yewwi Askan ñu ngoon ci ñi nga xamante ci yooyu

candidat yi nag ay bees marron de rawatina ñi nga xamante si ñoo nekkoon ay candidat ci élection locale yi ñu dal weesu ñoom ñëpp nag yëkkati nañu seen valise fekk ki nga xamante fukki at juróom la am te mu woon noonu naka ca Touba ki ko faat naka xam nañ ko di ki nga xamante si moo doon génn ak moom yéenekaay bi naka gannaaw enquête bi mu indi si ay xibaar yu doy waar nag ubbil yéenekaay bi nee naka ñetti fan weeru sulet bi ñu weesu bi 11 fi nga xamante ni si moo di ab benn boo xamante ne en plastique la jàppale naka moom waa ji def jëf ju ñaaw jooju naka ñaar fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru ut atum 2005 la juddoo Abdourahmane Mbacke moom daal moo ko dóor ab xeer bu rëy naka ci boppam bi laataa muy faatu naka mu daal di koy xoj ba mu ñàkk bakkanam ci yàlla ubbil yéene kaay Ndeye Ndiaye la mu wax kooku nga xamante ni moo nekkoon faram ba mu rey ko naka moo dafa wanoon lor te mu xam le ne ko moom moomee nag moo ko wanu loo lor loolu nag la mënutoon a wanaasu ba tax nag mu def jëf ju ñaaw jooje ci Sénégal da ngay tiim sa cere siim ko siim nga siima siim ba mu tooy xëpp ëlbatiku nak naan du yow booy mu jaral la rey doomu aadama da ngay seet jëf ju ñaaw joojee nag waaye moom xale bu góor gi ba mu defee loole ba noppi nag moo ko dal dee wax rek ay waajuram laataa naka police di dal dee àddu cay Sénégal faat gi metti na ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf bu ëllëg